ci euh, sàkku woon mboolem seen actu activité politique ba ñu daal di koy euh, dakkal arrêté donte sax ndigal la saxoon na fa waaye euh, mu sàkku itam ñu daal di tuxal yeneen ci ay bureau de vote toll ci juróom benn téeméer ak lu teg alors aujourd'hui yéen ñi nga xam ne ngeen yëngatu ci wàllu euh, politique foofee ca Touba ngeen ràññeeku ngeen ràññeeku fa lool naka ngeen jàngatee déjà cette décision maanaam dogaluk sëriñ bi waaw Mohamed jërëjëf si kàddu yi ñun ñu dëkk Touba nekk ay taalibu Sëriñ Touba bi Sëriñ Touba xasee ba yëkkati kàddoom ndigal lu mu joxe dañ ko appliquer ndax dafa nek dëkk bo xamanteni euh, Serigne Touba moko ko sancoon ci ndigalu boromam muy dëkk bo xamanteni tamit dafa am titre foncé la manam Serigne bi moko mom tour turu Serigne Touba mo ci nek mhm. kon daanaka mën naa ni kër la kër nak borom gi mom moy kilifa borom kër gi. bu serigne bi yëkëté cadeau ci lu mu mënd di doon lu nek dañu fekk ci cadeau gogo non ta xamni ndariñ lay doon mais du nek lor. da ko na ni politique bi depuis 1960 ba fi may waxe yow politique mi nga am Touba. mais fas yi ginnaaw ni politique bi amee depuis élection législative ba léegi dafa ñaaw si dëkk bi yàlla nag ñun dañuy politique parce que ñun euh, depuis ba tey ñu ngi politique papa njëkk nekk député gañal Ablaye Wade Touba ba fi may wax ba ni bàyyee ba ni ñëwee kenn mosu fa dégg bruit boo xamante ni waa PDS yi wala waa kii def na fa nangam mm-hmm. bu fekkente ni ten sëriñ bi élection législative yi mois de juillet yi passé ku ne xam na ni tey waa benn muy wa APR. dem nañ ci kër Serigne Touba gi nek Daru Manan nga xamanteni bâtiment bi Serigne Sidi bu sa ñaar jenn nyom defal ko Serigne Touba wa APR ñom ñofu doon def am meeting ba Serigne bi yëg mu nakari wo ñep parce que nak kër Serigne Touba bu ñu fa jàngalee xasaay jangul fa waru ñu fa def ay meeting pour Macky Sall. bu ko Serigne bi yegge bu fekkon dafa wax ci jamono yoyu dañuy japp ni xeyna ñom liñu bok APR wala japp Macky Sall mu wax bi lolu passé ba lu jeex. ñu gisaat ni maanaam tey jii war ma ji nga xam moom la war a jox dëkk bi ba tey des na. Mm. ndax tey seesu benn bokk yaakaar ni muy seen permanence waa APR yi. ba fii mooy wax mi ngi si biir dëkk bi ndax am na bu nekk Guédé am na mu nekkoon Daaru Manaan fi jàkkaarloo kër maam Thierno am na bu nekk maanaam côté Ndaam kon jàpp naa loolu lépp bokkul si war maay dëkk bi. Mm. te waa benn bokk yaakaar ñoo ko def. beneen bi mooy fan yi si ginnaaw ci la première bi passé ku ne gis na waa kër Ousmane Sonko yi. Mm. ci benn audio boo xam ne mi ngi euh, déroulé ku ñu wax Cheikh Thioro wax ko ni manifester nan daje ci rond-point ancien gare su Dakar bi pour taal ay pono man jàpp naa ni lu mel noonu bu fekkente ni tey danga dëkk si dëkk bi nga sant Mbàkke la nga war a gën a conserver mooy deru dëkk bi sàmm war maay dëkk bi ci ndomb tànk bi nga am parce que man mii di wax ak yow nekk naa député ñaari yoon kenn mosuma dégg ma woote manifestation si biir dëkk bi. moo tax nga jiiñ ko Macky Sall ak Ousmane. waaw parce que ñoom ñëpp kaddu gi jubee kenn ku nekk ñoom ñëpp kenn ku nekk say ñooñ. dañoo def loo xamante ni dangaa dindi wormaay dëkk ba parce que tey waa Pastef comme ni ma la wax noonu. Mm. ñoom ñoo woote foofu ñoo dugg si biir dëkk ba taal fa ay pono ba lakk fa kër jàmbur. am na ñu si jot a jàpp ñu koy ñaawlu parce que nee naa ma nekk naa député ñaari yoon gañe naa Touba ñetti yoon. musuma woote manifestation musuma maanaam def benn act boo xamante ne dafay ñàkk worma Touba parce que man damaa jàpp ni Touba moo ma gënal sama bopp Touba moo ma gën a sama ndomba tànk gi ma yor bu ma sëñ bi ne woon kaay nga bàyyi politique bi démissionné ci ensemble damay démissionné tok samay kër dok sa tok lool la wara jëk jëkk lool motax yenn ñi dama leen di invité pour ñu jiital lool te bañ jiite politique mais fekk da nga japp ni xeyna ki nga andal motax nga nekk député mm-hmm. bu nekkutu yow do nekk dafa melni gëmo gëmoo to wala gëmo sa bop motax tax sëriñ bi bimu mu jëlee décision bi ñun ñi nga xamanteni tay ku ne xamna ni Touba man en tant que chef de l'opposition département bi nekk candidat élection présidentielle 2024 Touba mooy sama yaakaar ci wot bi parce que Touba tey bu ma doon woteel gën ngaa ne dinaa fa mën a am 200000 électeurs parce que xam naa waa Touba ak yéen bi na am ak programme bees bi mu lay indil soppi ak doomu daara. ñaata électeurs nga wax 200 200000 naa ko maanaam jëmbi Touba rek. Mhm. loolu jàpp naa ko loolu moo tax 606 bureaux de vote yëpp ba sëriñ bi ne dana am benn impact bu mu am ci électoral bu Touba. ba noppi ñaareel bi maanaam il faut ñu modifier code euh, cot bi nga xamante ni mooy carte électorale bi. Mm-hmm. ba pare il faut ñu jéem a xoolaat code électoral bi parce que ku ne xam na ne bu élection desee six mois. Mm-hmm. kenn amatu sañ-sañu laal lu jëm ci affaire élection mbir mi am na jeexital am na jeexital moo tax jeexital boobu nag il faut dañ si waxtaan. dinañ a xuus Fatou Abdou ñu bàyyi la nga euh, bi jox ko Pastef ak euh, Benno Bokk Yaakaar euh, buñ ñu dee wax Touba euh, le PDS wàllu bi nga bokkoon bëri na loo xam ne élection ñu jot a jaay yëpp dañu fay am mbo mbooloo bu bari et pourtant am na ay élection yoo xam ne gis nañu caxat-caxatee ay bureau de vote te boobu waxaguñu waxu Pastef et Benno Bokk Yaakaar. waaw xam nga loo gis nekk dafa am benn responsable bu si am jamono élection yooyu ngay wax man mii di wax yow ci la faloo muy 2017. mais am na boo Kounda wax Morlo benn bokk benn bokk yaakaar jamono mooy ki gàddu woon saako bi nga xam ne moo defoon bulletin Ablaye Wade yi tey bi nga xamante ni yoon jig mi ngi jàpp sax moom la jàppoon kon jàpp naa ni la may wax sax suur rek ni kon waa benn yaakaar waa APR njëkk yàggoon nañ koo def ndax njëkkoon nañ koo def ndax tey ji foofu nga xamante moo nekk unité la woon fii la affaire bi amee woon 2017 la mooy élection législative yi jamono boobu ñàpp waa APR lan woon kon jàpp naa ne tey jii loolu moo ñu fekk sewaat li nga xam moom la defaan nii nii tax chaque jour man damay cité ñi nga xam ñoo parce que dëgg tamit yàlla moom moo ko moom man Macky Sall ko kenn yoru sama mbir Sëñ Tuubaa moo yor sama mbir te may fal xaw ma leen ñoom ñëpp kon damaa wax ni il faut que Touba ñu sàmm ko ñun ñu fa dëkk parce que ñoom ñuy xëccoo ñëpp kenn dëkkul Touba oh, ñun ñi ñoo dëkk Touba. yéen ñi féetee ci kujje te sant Mbàkke doon ngeen jubilé ne bulletin nul li ñoo ëpp euh, vote ñi nga xamante ne foofu am parce que ñun bañ nañ ba nga xamante ne bulletin blanc bi man mi maa ko porté woon parce que man maay meeru bulletin blanc Touba mm-hmm. parce que dama wax ni ku ma bëgg woteel ma nekk maire woteel ma bulletin blanc li tax ma defoon ko tamit mooy Macky Sall moo ñëw Touba wax ni bulletin bii mooy bulletin muy benn bokk yaakaar ma teg sama bulletin muy bulletin blanc bulletin blanc bi gagné bulletin Macky Sall. waaw bu fekkoon ni maam si deug deug deug dëgg maire bi. lolou est-ce que dafa ko a joxe contre sëñ bi. parce que sëñ bi moom moom mo dégg nga wax xam nga yow batay da nga comprendre parce que Macky Sall mi mom bulletin bulletin bi du bulletin sëriñ bi. Ah. wax naa ci benn yoon wax naa si ñaar yoon wax naa si ñett yoon. parce que Macky Sall moo ñëw. liste unique bobu Macky Sall moo ñëw ne liste bi fii ñoo bëgg liste unique boobu. Macky Sall mo ñëw ne liste bi liste Benno Bokk yaakar la bam kay wax serigne Bass Abdou Khadir ma nga toog ca immigration hôpital hôpital bu Touba bi. Hmm. maa ngi toog. mu ne yéen waa Mbacke na ngeen gañe ngeen. Hmm. yéen waa Touba na ngeen góorgóorlu bi yoon parce que bulletin bii sama bulletin la. Hmm. ma ne ko nag comme sa bulletin la dinaa wut bulletin bu la contre moo tax ma indi. bulletin balaa waaye yow mi dëkk Touba xam nga ne ki koy war a jiite. di xam nga xam nga xam nga xam bi liste bi sëriñ bi mooy tànn ku ko neex mu nekk maire. waaw kooku sañ-sañu sëriñ bi la. code électoral bi dafa wax dëkk yëpp dañoo war a am ay liste. Mm-hmm. ba mu am parité lu tax Touba nekk exceptionnel. Mm-hmm. mooy li Touba li mu am borom moo tax. mais bu fekkente ne tey jii ñoom tànn nañ maire. kooku am na sañ-sañ waaye fi ñu ko def nga xam ci liste bi ñu ko def nga xam Macky Sall nee na ab listam la. Mm-hmm. génn ma man génn ma dëkk ñaa génn Fallou Mbacké génn suñu Cheikh Mbacké Cheikh mais loolu boo nee liste sëriñ bi te njabootu sëriñ bi nga xam ñoo waroon a nekk ay tànk pour war a a bénéficier wu ñu leen si jël ay policiers yu bokk benn bokk yaakaar teg fa kooku liste benn bokk yaakaar la loolu moo tax ma defoon li ma def te bu doon ñu dem ci sa assemblée boobu noonu yow sa beneen naataango député di opposant di Guy Marius Sagna am lu mu yëkki ci kàddu bëgg leeral ci keesu assemblée ni ñu koy yore yow nga attaqué ko xam nga du attaque xam nga man damaa wax dëgg te yàlla tax parce que man ba may nekk député xaw ma Guy Marius Sagna askan wi ñu fal dafa am lu ñu yóbbu ensemble soxlaay Touba soxlaay population bi wax keesu ensemble ñaar fukki milliards la ñu wate ko mu wara nek fonctionnement ak investissement fonctionnement c'est le salaire du député bokk kooku ngay wax dafa nek vice président du commission ku nek vice président du commission da nga am manam juróom ben fukki jinn yo xamante ne en tant que vice président commission la da nga am ñeent fukki jinn yo xamante ne indemnité de la muy téeméer junni da nga am 450000 francs yo xam moy 500 litres essence yooyu noonu da nga am li nga xamante ne mooy un million trois cent mooy sa salaire da nga amaat maanaam neuf cent mille francs yoo xamante ni moom moom la ñuy wax maan indemnité de voiture de transport boo leen boole mu nekk trois millions cent cinquante mille da koy am par weer waaw léegi lu mel noonu bu ko nit amee ci keesu ensemble lay jógee man mii ma di ko am keneen di ko am keneen di ko am mais est loolu war naa tax nag nga taxaw war a wax askan wi dëgg nga mere nit ki wala en longue moom nga bëgg a yàq deru assemblée ngir sa kam moom lëj ma déglu ma déglu man damay wax rek xam nga il faut ñu wax man bu fekkente ni wax nga loolu en tant kaddu bu fekkente ni tey nekk na assemblée ñun la ñu war mooy dañoo war a wax li nga xamante ni mooy njariñu askan waaye keesu ensemble dañu koo lekk ngir ko xëy na contrôle bi nga xam jàpp nga ne yow war nga ko mën a contrôle assemblée contrôle loo ko ngir loolu ñun li ñu mën a wax ñun li ñu mën a wax te war ñu mooy keesu assemblée député yi lii lañ ci am kenn ko ne na ko wax. waaw léegi vingt ah. milliards yi lim ci soxla mooy lu leer quand même. loolu ah. day laaj loolu en tant que député am na ci droit. xam nga mu leer ñun ñii di wax ak yow bëgg na assemblée qu'est-ce leer mais bëgg na assemblée le député bu nekk da nga siy gagné te war koo bénéfice nga xam tey trois millions cent mille francs yooyu noonu man na dix tonnes kemb nga war ko jël pour séddale ko maanaam ñi nga xam ñoo ñooy baykat yi. pourquoi defuñu ko. yow bu fekkee bëgg nga jël sa xaalis séddale ko baykat wala ma jox ko les étudiants kooku yow la mhm. mais est-ce que député amul sañ-sañ le budget bi le fonctionnement bi le fan la koppar dugg mu soulever ko quand même à l'Assemblée nationale mais xam nga fekkoon bëri na loo def ay questions orales xam nga léegi loolu xam nga lan moo ko indi